ndax moo ne kulu xaq walaw kaanamuwan wax dëgg donte dañuy teg paaka sa put di la rendi ginnaaw ba yàlla la ñu gëm doomu aadama ameewul màqaama ñàkk a nekk ci dëgg te duñ ko ko wax ameewu ko màqaama loolu loolu loolu dëgg la xam nga sànq li ma bëgg a wax tuuti mooy Sénégal dafa am benn baax bu ñu def mooy lan euh, mag dañ koy war warmaal dañ koy jox cër